nun nag dara lu wees sant sant Sëriñ Tuubaa ndax dañu xam ne kenn ku nekk ci nun ci mboro la bàyyi ko sëriñ bi la xool ba mu soog ko mu ne la coqet na kaay liggéeyal ma te Sëriñ Tuubaa comme du comme dul fay la doo liggéey te Sëriñ Tuubaa ku mu sa aajo faju kon nun dara lu weesu takk takk suñ suñ ndigg gën góor góorgóorlu fàtte luñ defoon démb jàpp ne tey ju nekk lañ war a am ci sëriñ bi tey jiile nañ jàpp ne tàmbaleeguñ magal gi di ñëw ci lañ war a tàmbali waaw dundu dara lu weesu jaam yàlla yoo xam ne sëñ Tuubaa la sëñ Tuubaa la sëñ borom teg léppam ci ci ci ci loxoom. mbir yi nag pësteef dong nga ciy jotale nit pësteef defoon naa daaw defoon naa daaw jëg nañ fàtte lépp xam ni sëñ Muntaxa mi ko woote gën a feddiku ak gën a ñu gën euh, ñu gën a takk suñu digg dong nga tax mu woote ko koy nañ ci jëlee loolu nañ ci jàngee ne noonu mos ñoo sëqeguñ ab jéego. gën a takk suñu digg gën a góor góorlu te jàpp ne magal gi di ñëw incha allah ci la a tàmbali liggéey Serigne Touba lañ defoon moom nañ ko teg fële yàlla nañu Serigne Touba dimbaleel boppam nag ndax ba noppi ndax buñ dimbalu toon duñu am taw feexe liggéeyal ko fii ci barabam bi kon yàlla na Serigne Touba doon ndimbalam ci noonu yàlla nañu gën a attanu ku nekk rek am nga aajo yàlla na ko suñu mën a faj ci barke Serigne Touba nu kawe na nga ko bëggee kon euh, liggéey baa ngoog Serigne baa ngoog du jeexal dara benn benn benn buntu la am buñ ci gën a muy Pastef ku ne nag lo loo la nga fi jëf nga fiy góobee lu coow lu bari bari lu booloom bari bari rek kenn du fi jëf yu bari kenn du jubal yi fi kenn loo roqe-roqe fa nga nekk ak lu man di mel na nga xam ne yow képp yaa fa nekk sa jëf yow képp ko moom kenn yóbbaalewu la fexeel ba rek yow bu gaa yi dem di di séddoo bu la kenn gañe loolu rek mooy liggéey bi mm-hmm. jërë ngeen jëf isaakumulaa xeer